bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi saw ridwaan wa tamkin amma baad mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci waxtu bu tedd bi ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu sàmm nu sàmmal mu sunu kilifa gu nekk gu tedd gi nekk ci suñu kanam ba mu gën fee yàgg lool te may ko sago ak gër gu yaram ak sago ak tawfiq ba mott li li mu yéene ci diine ji yéene ko ci yoon wi tanu ànd ko ak moom sunu waxtaanu tey mu ngi jëm ci rek at mi nga xam ne dafa jeex di atum jant bi ak meneen at mu teew nekk ci suñu kanam loolu nag saa buñ ci àggee dañuy war a taxaw xam ne at mu jeex moom dara la tekkiwut lu may am na lu dem ci sunu dund wàññiku ca li muy tekki mooy gën nañoo jege alaaxira gën a sori àdduna li nga xamee ne boroom xam-xam bu mag wax na ko lu abu darda nee na nit ki daal bu seetee ak dundam ay ay bis la yuñ dajale mel ni ku ko takk aw say bis bu set ñu jël ci benn mu wàññiku bis bu set ñu jël ci benn mu wàññiku kon bis bu dem rek am na lu wàññiku ci yow kon day war ci nun nag saa bu loolu ñëwee ñu muraajaa suñ bopp nafar suñ bopp dellu gannaaw ci suñu dund xisaab suñ bopp muraaxaba suñ bopp ngir waajal nag digg ba nga xam ne mi ngi gën di jege bis bu set te faaw mu ñëw li kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saatan wa laa yastaqdimuun moo tax Seydina Umar radiyallaahu taala anhu daana wax ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu na ngeen di régler seen bopp di di di di di di di di auditer seen bopp bala ñu audite a auditer dana am bis boo xam ne bu ñëwee nit ku nekk yàlla dana ko seet lam jëf ci lu baax ak lam jëf ci safaan lépp. yàlla dina ko seet nee na seet leen seen bopp bala ñu leen a seet kon. kon kenn ku ne ci ñun war naa taxaw càmbar boppam ci at mi jàll seet ko bu baax lañ bat ko su seetee nag la mu gis mooy aw yiw daal bari na ca yu ko yàlla taw feexal mu def ko mu sant ca yàlla ca taw feexal nga ko taw feexal mu def yiw woowee te laaj ñaan ko nag mu saxal ko ci woowee mu continuer ca di ko def soo gisee safaan ba tam gis ne ay rëcc rëcc bari na ca mu gaawatu nag tuubal suñu borom tabaaraka wa taala ci rëccu lépp loo xam ne jóge na ci moom ci ay moy te dogu nag ci ne at mii di ñëw moom dana fas yéene loole mu defoon duutu ko dolli mukk ci àdduna ba noppi nag baril ay jëfam yu rafet lool baril ay jëf ndax baril jëf yu rafet dana far jëf yu ñaaw parce que jëf yu rafet dana faral jëf moo tax ñu war di farlu ci def jëf yu rafet waxuma laa am ngeen cee amub yool waaye far ga muy far say ñaawteef rek loolu rek jar def ko te yàlla subhaanahu wa taala moo ñu ko wax ci alquran ne na ngeen di tuubal yàlla tuub bu sell tuubu ilallahi tawbatan nasuha waaye su ngeen ko defee asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudxilakum jannatin tajri min taxtiha al anhaar mën naa yàlla wala ndax yàlla jéggal leen faral leen seeni ñawteef tabal leen ajana kon saa bu at mi dikkee rek loolu doomu adama ju nekk war naa def loolu càmbar boppam xool ay jëfam la ca baax mu sant ca yàlla fas yéene ca sax la ca dem asafaan mu tuubal ko yàlla suma subhaanahu wa taala te dogu ci bañ koo defati li des ci ak dundam kon ki xel moom mooy ki nga xam ne yàlla bàyyi na ko fi te defut lu tax mu bàyyi ko fi ña dem it yàlla defut defuñ yàlla lu tax mu yóbbu leen waaye yàlla xéewal ko ba bàyyi ko fi kon li des ci ak dundam moom na ci profité bu baax ci kër gii mu nekk di dund fas yéene yóbbuloo fi loo xam ne fa mu jëm te dara du fa doy mu yóbbuloo fa yóbbul bu doy sëkk boo xam ne bu demee foofa dana ko jariñ jariñ loo xam ne lenn jariñ du ko féete kaw mu def ko ngir dana am jamono yoo xam ne da koy faat da koy bëgg di ko mébét te dana faat xam la fawatil awaan muy rëccu nag di matt baaraamam naan su ma yëgoon su ma yëgoon su ma yëgoon te su ma yëgoon jàll na bu yàgg subhaanahu wa taala mi ñu koy wax ci alquran ne wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum mawt fa yaquula rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min alsaalihin nee na bu ñu bu ñu dee na àgg jamono yoo xam ne bala caa àgg bay wax naan ay yàlla nee na nee na na ngeen def lu baax ci li leen yàlla wërsëgal ci alal wala ci daraja wala ci lu mën a doon ngeen di ci def lu baax jëkk bis di ñëw boo xam ne dangeen ngeen di wax naan ay yàlla ba ma fi bàyyi woon tuuti rek ba ma dellu at ba ma jëfaat jëf ju rafet joo xam ne danaa ko mën a indaale fii te dana bokk ci ñi nga xam ne ñu baax la ñu doon sunu borom tabaaraka ne nag bala ngeen àgg foofa nag da jëf jëf jooju nag bala ngeen àgg ci ndax buñ buñ àggee foofa wala yu axira laahu nafsan isaa jaa ajaluha dig ba moom bu agsee mébét ak ñaan ak lépp dara ko taxawuñu ko faaw mu ñëw kon balaa ñëw nag na nga profité yow fas yéene yóbbante ko lu bari lu baax loo xam ne boo demee ca bis ba dana la jariñ jariñ lu rëy loolu la sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu di wax ci masaalikul jinaan di ko junju wa arxabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaati nee na ñi faatu day soo leen fëggoon laaj leen liñ gën a bëgg du doon ne dellu ci euh, dem ajana duñ ko wax duñ wax leen waaye li ñuy wax mooy ñu yàlla may leen rek ñu siwaat fii ba am fi as waxtu su ndaw a ndaw a ndaw doonte ne ay seconde la ñu dellusiwaat ko ci àdduna rek ba mën a jëf loo xam ne saa bu ñu delloowaatee dana leen jëriñ ndax booba xam ne njëriñul jëf foofa te foofa du barabu jëf barabu fay la lu fa waay bëgg a jëfati kenn du la ko may kon ña fa dem ña dem foofu moom ba xam njëriñul jëf. suñ leen laajoon lu ñu gën a bëgg mooy siwaat ba jëf jëf ju baax joo xam ne suñ delluwaatee foofa danañ gis njëriñ la kon mu ne nag yow mi nga xam ne yàlla may na la loolu nga desee la fi ba nëgg ni kon na nga profité ci lee la fi dese lépp te toppoo ci woon yàlla nga buur nag jëm ci topp yàlla jëm ci wattandiku euh, tere suñu borom yi te wala balaa laa faat balaa laa faat rek balaa looloo faat ndax loolu dana faat. al aana waqad asayta qablu bi kunta minal mufsidin am mu foo xam ne bu fa àggee tuub kenn duutu ko nangooti kenn duutu la nangul ak tuub la nga àgg foofa nag na ngay tuub te rëccu te fas yéene la nga defoon dootoo ko defati te fas yéene baril say jëf ndax yàlla jéggal la loole te fulal la ko defal la ko ay ay yiw bokk na ci li ñuy war a fàttali ko mu ne kon nañuy waajal ëllëg waaye li gën ci waajal ëllëg nag muy muy muy dee la gën ci waajal ko mooy nga jàpp ne àdduna ji nga nekk kat ab rombukaay rek la da fee romb rek jàll doo fi jël dara loo xam ne du la jariñ ëllëg addun addunya daaru mamar wal axiratu daarul maqar fii moom rombukaay la waaye kër gi dëgg-dëgg nag ba ñuy sax te duñ fa dootuñ fa jóg mooy alaxira waaw ni ko sëñ to sëñ Tuubaa radiyallaahu waxee ci jawartu ne axastu min dunyaahu zaadi lil jinaan man da bàyyiwuma àdduna waaye lépp lu ma fiy def lu may amal njëriñ ëllëg lay doon lépp lu may def ci àdduna rek lu may amal njëriñ lëg lay doon waaw loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne boo ne ci àdduna da ngay dund mel ni ko ab tukkikat bu romb ci garab rek noppalu fa fas yéene rek fabuwaat ngir continuer ab ab doxam waaye bu fekkee da ne ci keroog garab muy àdduna garab ga sedd nga daal jàpp na foofu nga jëm si woon nga daal fay tëdd ba nelaw ba yandoor fàtte ne fa nga jëmoon àggagoo fa bu ko defee boo yeewoo danga xam ne la def nekkul loo xam ne loolu nga waroon a def. kon adduna liggéeyukaay la alaxira la ñuy fayee kon ku nekk ci kër liggéeyu dangay ngay fas yéene bay lu bari loo xam ne boo góobee da nga far mën a jëriñoo la nga góob ci euh, euh, nu gën a nu gën a nu gën a sakkan kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiru sabil ku nekk ci àdduna noonu nga fi nekkee mel ni ab tukkikat rek waaw ab tukkikat dong nga fi daal da nga fay ñëw am na foo jëm waaye nag jëmu fi jëm jëmu ci àdduna kon loolu war nañ koo xam bu baax a baax a baax ba di ko def ci suñuy xel ba saa bu at mu jeexee rek duñ ko def ñi ko ñenn ñuy defee jàpp na at mu jeex ngay bég di kontaan di di di di di fookaree te la ngay fookaree du dara lu may sa digg bu wàññiku rek la. gën goo jege gën goo gën a gën sori àdduna gën a jege alaxira loolu rek ngay bég ak ree waaw te loolu boroom xel bu ko def borom xel moom day xalaat ci loolu saa bu ñëwee mu loolu tiitloo ko loolu daf koy tiitloo ba mu dellu ci boromam nag xam ne yëf yaa ngi bëgg a ñëw. lu lu loo sori sori rek ak loo gudd gudd fan rek ginnaaw day wàññi ko te du yokk moom loola war nga cee def sa xel war nga cee sa xalaat xam ne mi ngi ñëw. حي على الفلاح Omar radiyallahu taala anhu muy Abdullah ibnu Omar radiyallahu taala anhu daana wax naan soo nekkee ci soo doomu adama ji saa bu gontee day jàpp ne suba du ko fekk du ko xaar du toog di xaar suba lu mu war a def rek da koy def waaye du toog di xaar suba ndax xamul dana ko fekkeem déet waaye saa bu xëy day defe ne ngoon du ko fi fekk du xaar ngoon day def day la mu war a def lépp da koy def te bañ a xaar ngoon ndax xamul dana ko fekkam déet kon daana wax loolu ida wa ida asbaxta fala tantadir almasa cheikhuna abdul xadim radiallahu taala ci wax yu am solo yi muy wax ci ay xikamam ak ci ay ndénkaaneem wax nañ ci yu mel noonu wax nañ ci lu bare bare bare bare bari loo xam ne koo ko jàpp àdduna du la nax àdduna du la wor kullu amrin dunyawi in lam yakun li maa yutawassalu bihi ila amrin uxrawi fa huwa baatil lépp mbirum àdduna moo xam ne du la du la may dara daray ëllëg lépp looy def ci àdduna te du la may dara ëllëg nee loolu ay neen la nee ni kese la looy def ci àdduna rek te yaakaaroo ci looy am ëllëg loolu ay neen la kullu ma laa yujaawisu dunia bi nafi l axira huwa dunia nee na àdduna dëgg dëgg dëgg mooy loo xam ne jéggiwul àdduna jëf jooy jëf am na ñu bari ñoo xam ne léeg-léeg ñuy jëf-jëf yoo xam ne dañ naan jëf ji lii di jéggiwul àdduna lii moom àdduna la yem lépp lu jëm àdduna rek nee na loolu mooy àdduna dëgg dëgg dëgg àdduna loolu mooy adduna ndax kenn waru fee def ci ab jullit lenn loo xam ne ala adduna la yam ab jullit wërta def ci adduna lu yam adduna waru ko def lépp lu muy def rek lu mu mën a doon ay yëngatuwam ay dalam ay jamam ay dikkam yëpp war na caa xalaataale ëllëg axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan jooju ñun ñëpp dañ ko war a jëlaat lépp looy def ci adduna rek nga di ca wut yóbbal boo xam ne moom nga ca bëgg ëllëg kon yàlla na suñu borom tabaraka def ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy waaru ci bis yi ak at yi bis yi romb ak at yi romb dañ ciy waaroo di xisaab seen bopp jëkk ñu leen di xisaab wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu xutba imaam bi mu war ko wax léegi xutba bu jëkk bi rek gannaaw moom sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy digal di ñu laabiire ñuy fàttaliku xéewali yàlla yi ñu xéewaleel te xam ne amul kenn ku ñu bind di ñu xéewal ku dul suñu borom tabaraka wa taala hal min xaaliqin xayrullah yarsuqukum min asamaai wal ard laa ilaha illa huwa fa anna tufakun te ñu jéggul suñu borom tabaraka wa di dellu ci moom di ko tuubal di di ko bàyyi xel bu baax saa bu ñu nekk saa bu nekk ñu di ko muraqaba di di di ko ñaan tey jaar ci suñu nit ñu baax ñi di ko ñaan tey warmaal lépp lu yàlla warmaal ak fépp foo yàlla warmaal tey watandiku tooñ yàlla te tooñ yàlla mooy bokkale ko wataniku tooñante ci suñu biir lu ñu ci def ñu jéem koo taxallul jéem koo jéggulu ku ñu tooñoon ci lu baax ci lu nëbb ak lu feeñ yépp ñu fas yéene euh, euh, jéggulu ko ko ba mu baal ñu ko ñu wataniku tooñ lool nag ndax tooñ moom man a jëriñul kenn dara ku jege yàlla daf lay da day da day day daf lay ñaawal sa jëf ku ku jegewul yàlla it dafay yàq sa jëf da koy da koy da koy yàq sa jëf yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na jóge jële ci boromam ci hadis qudsi boo xam ne daf ne yaa ibadallah inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum xaraaman fala tazalamu man de yàlla man ñii di yàlla day yéen sama jaam yi araamal naa ci sama bopp tooñ du ma tooñ kenn waaye nag araamal naa ci seen diggante ngeen di tooñante yéen ci seen bopp daana yéen yéen sama jaam yi ñun ñëpp da ngeen a sànku xamu fu ngeen jëm ku dul koo xam ne man maa ko maa ko jubal maa ko xàllal yoon wa nga xam ne ca lay jaar man rek maa ko man kon fastahduni ahdikum da ngeen sàkku ci man ak njub mu jubal leen man rek maa ko mën yaa ibaadi kullukum jaain illa man atamtuhu fastatimuni fastatimuni atimukum yéen sama jaam yi yéen ñëpp da ngeen a xiif da ngeen a xiif yàlla da ngeen a xiif lu baax kon sàkku leen ci man ma leyal leen man bi nga xam ne maa am lu mën a lele yéen sama jaam yi yéen ñëpp da ngeen rafle da ngeen rafle kenn kenn ci yéen amul lu ko muural ay ayibam da ngeen rafle ku dul koo xam rek suturaal naa la kon sàkku leen ci man sutura ma suturaal leen rek man sunu borom tabaaraka wa taala yéen jaam yi yéen ñëpp da ngeen di mooy yéen ñëpp da di def ay bàkkaar ci guddi ak ci bëccëg te man damay jéggale kon jéggulu leen ma ma jéggal leen ci xutba bu ñaareel bi ba tey day continuer rek ci gannaaw bu mu julli ci yàlla euh, julli ci sant yàlla julli ci yonant bi dañuy wax rek nañ di gën di wàcceel wàcce wàcceel wàcc wàcceel li ni ci yàlla yàlla lim am nañ koy wàcce nuñ koy wàccee yërmande yàlla ji nuñ koy wàccee mooy ci tuub ak jéggulu tuub ak jéggulu rek ci li ñuy wàcce yërmande yàlla waaw te taxaw ci nekk ci kanam yàlla tàllal ko suñuy loxo ci ak zullu ak inkisaar toroxlu lool ci kanamam wan ko ne say jaam dong lañ ndax mu jéggal nu ndax ku taxaw ci buntu ku tedd ku am di ko tàllal ko say loxo dana la ubbil buntu ba jox la la ngay la sàkku ku jéggalu say aajo koo xam ne mën naa mooy jéggale ay aajo moom képp moo koy jéggale moom dana la jégal say say aajo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ala adullukum ala daa'ikum wa dawaa'ikum ndax duma leen tegtal seen seeni seeni feebar ak seeni saafara feebar yeneen di dal ñu ngeen ñëw ma tegtal leen ko ak li koy saafara du ngeen ñëw ma tegtal leen ko ñu ne ko ah kay ne ala inna daakum dunub nit moom li nga xam ne mooy feebaram mooy mooy mooy malaadeem dëgg dëgg dëgg mooy bakkaar seen feebar mooy bakkaar waaye wa dawaa ukumul istixfaar seen saafara mooy jéggulu am ngeen am ngeen feebar am ngeen bopp joo xam ne da leen di dal yéen ñëpp mooy bakkaar waaye am ngeen saafara su ko saafara mooy jéggale ku am ku ëpp nag am saafara bu ko saafara boo sàgganee ba ba mu gaañ la da nga da nga da nga sa bopp. kon loolu ñun ñëpp nañ cee def suñu bopp di dellu ci suñu bon borom tabaraka taala di ko jégglu di ko tuubal tey def lépp loo xam ne lu baax la ñu di ko sàkk ci moom kon yàlla na def ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy topp euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey def lépp loo xam ne lu ñuy jariñ la ëllëg te euh, dellu ci moom suñuy tawat yëpp ñu delloo ko ci moom mi nga xam ne moo mën a dàq lépp moo mën a fegal nit lépp dalikum allahu rabbukum fa tabaraka allahu rabbul alamin huwa alxayu laa ilaha illa huwa fad'uhu muxlisina lahu ddin alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu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 alhamdulilah alqaa'imi ala kulli nafsin bima kasabat almuhsi ala ibaadihi jamii acmaalihim qallat aw kasarat wa nashhadu annahu allahu alladi laa ilaaha illaa huwa shahaadata abdin ظهرت طويته وأسرقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كبرت كبرت مكارمهم وكثرت أما بعد فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأني توفكون واستغفروا الله وله أنيبوا وإياه فراقبوا وبخياركم توسلوا وحظموا حرمات الله وعن الظلم ارجعوا ومن الموالم تحللوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الظلم فإنه يعيب العامة كما يشين الخاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي يا عباد الله inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu yaa cibaadi kullukum daallun illaa man hadaytuhu fastahduuni ahdikum يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحمد لله راحم من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا وجابر سطع من قصده منكسرا ومتواضعا لا إله إلا هو لا مانع لما أعطى ولا مهطي لما أصبح مانعا أحمده لا أني أهسس أهسس ثناء عليه ولكني أصل ما كنت له بترك حمده قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا أيها الناس istamzilu ma indallahi bin nadami wal istigfaar waqifu bayna yadayhi wuquufa zulli wal intisaar fa inna man waqafa bi baabil kariimi fataxa lahu abwaaba wa man istagfara ومن استغفره قضى حوائجه ويسر أسبابه وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار جعلني الله وإياكم ممن كان لحديث النبي الكريم واعيا وفيما ينفعه يوم يقوم الأشهاد جدا وساعيا لا يرفع شكواه إلا لمن يكشف بلواه ولا يعلن دعاءه إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وطهر قلوبنا ويسر مطلوبنا وأصلح أحوالنا وزكى أعمالنا وسدد أقوالنا وحقق في عفوه أعمالنا وحقق في عفوه آمالنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 allahu akbar allahu akbar sami'a allahu liman hamidah rabbana lakal hamd allahu akbar allah allahu akbar allah assalaamu aleykum asalaam